yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sipooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullah umpale woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir senegaal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bii nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawe liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matérielam saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi bunt yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën mëna mën jëm ci kanam ngir mu gën a mën jëm ci kanam sang yi ñu salmal ci moom moom mi nga xam ni mooy yonent bi nga xam ne yàlla subhaanahu wa mu woo ñu ko tànnal muy gën yonent ak ay njabootam ak ay saxaabaam feeg ba dégg bëccëg ñu wutante jàmm yàlla yi maa ngi dénk sama bopp di leen dénk ragal yàlla mu màgg mi ndax ragal yàlla kat mooy dénkaane yàlla ci ñi jiitu ak ñi mujj te moom mooy yóbbal bi nga xam ni mooy bi am solo pour ëllëg bi su fay ba te yàlla subhaanahu wa taala du sopp xam ne ñoo ko ragal yàlla ñu yàlla sopp yàlla du dul ñi nga xam ne ñoo ko ragal yàlla boole ci ñi ragal yàlla yàlla subhaanahu wa taala ne ñi may nangul mooy ñi nga xam ni ñoom ñoo ragal yàlla yàlla digal ñu ñu ragal ko waaye tamit ñu yóbbalu àllaaxira ci ragal yàlla yàlla subhaanahu wa taala wax ci suratul ci aaya fukk ak juróom-ñett mu ne yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla ragal leen yàlla teet leen merum yàlla def leen ay santaane moytu leen ay tereem te ngeen wattu yàlla wattu mbugalam ba kenn bu nekk no xool li muy jiital ëllëg buy dajeeg borom bi subhaanahu wa taala ragal leen yàlla te ngeen xam ni yàlla aji dañ kumpa la ci li ngeen di jëf mbokk yi bokk na ci lu ëpp solo li nga xam ne doomu aadama war na ko sonnee war cee ba xel mooy lekkam ak naanam fan lay jóge ndax fu dagan la wala fu xaraam la borom xam-xam bii ñuy tuddee Wuhayb ibn Ward yàlla ko yàlla yërëm nee na war naa ci yàlla ni boo taxawoon di julli mel ni ki poto bii ci jàkk ji nee na taxawaay bii du la jëriñ fekk seetoo li nga xam ne moom ngay dugal ci sa biir ndax lu dagan la wala lu xaraam moo tax ab jaam bu dee dafay bëri julli ci jàkka di taxaw taxawaay yu yàgg ba mel ni ki ab poto ci ruko ak sujjóot dee su ko nangul taxawaayam yooyu lu dul mu ba xel li dugal ci biiram muy dugal ci biiram loo xam ni lu leew la loolu moom mooy xisal ni ndekete lekk lu xaraam lu garaaw la lekk lu xaraam lu garaaw la moo tax mbokk yi mu war ci nit ki mu war a segg li muy lekk ak li muy naan wutee ko ci anam goo xam ne adam gu dagan la te lew teg nañ ci jamono joo xam ni ñu dañoo sàggane li nga xam ne mooy lu xaraam dañ koo ñàkkal fayda te fekk mu nekk lu rëy fa yàlla subhanahu wa taala yonente bi sallallahu alayhi wa waxoon nañ ci benn xadis boo xam ne Abu Hurayra moo ko génne radiyallahu anhu mu ne jamono dina dikkal ni ñi nee na ab waay buy ut wala muy lekk du xool la muy lekk wala la mu wut lu dagan la wala egg na ci jamono joo xam ne mbokk yi ñu bari ci nit ñi dañuy wax naa am rek nu ma amee baax na dagan na xaraam na amul problème bari na ci nit ñi ñoo xam ne li ñuy lekk ak di ko naan ak di ko sol boobu ñu xel ci koy jëlee ndax dagan na wala xaram na wala seen yoon nekk ci doomu aadama yàlla subhanahu wa taala daf ñoo xamal ni dafa bind doomu aadama ci bëgg alal moo tax doomu aadama bëgg gi mu bëgg alal ak dajale alal wut alal mën na ko yóbbee mu koy wutee ci anam bu xaraam mu seet ba xam dagan na leew na yoonam nekku ci loolu yàlla subhanahu wa taala wax na ni wa tuhibbuuna al-maala hubban jammaa nee na bëgg ngeen alal lool mu ngi nekk surat fajr ci aaya vingt sallallahu alayhi wa sallam di fedde ni loolu ci hadis boo xam ne Tirmisi moom moo ko Tirmisi moo solo wéral hadis ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne doomu aadama bu amoon ñaari xur yoo xam ne dafa fees dell wurus nee am ñetteelu xur boo xam ne dafa fees na waaye doomu aadama du feeseel gémmiñam lu dul suuf yàlla nag dina nangul tuub képp koo xam ni tuub na mbokk yi ba nga xamee ni fitna alal nekk na fitna bu mag bu rëy nga xam ni bëri na koo xam ni fiir nañ ko ci alal mu tàbbi ci fiir ga mu jaay diineem ngir alal ngir poñitum àdduna mu jaay ngorom ngir poñitum àdduna kon nag bokk na ci li nga xam ne moo gën a war ci war moom mooy doomu aadama moytu tàbbi ci fiir seytaane moytu tàbbi ci li nga xam ne moom mooy lekk alal bu xaraam mais bëri na ku ñuy naw ci wàllu julli yu bëri ci wàllu woor ci wàllu ay jaamu yàlla ay topp yàlla waaye ba nga xam ni tàbbi na ci fitna alal seytaane jàpp na ko seytaane sërëxal na mu mujj di xemem li nga xam ne moo nekk ci loxo nit ñi mu seet la muy jël ci nit ñi ndax dagan na wala xaraam sallallahu alayhi wa sallam ci xadis ba mu ne inna li kulli ummatin fitna nee xeet bu nekk am na lu yàlla nattoo mu ne wa fitnatu ummati almaal mu ne man sama xeet moom li leen yàlla nattoo mooy bëgg alal bëgg alal mbokk yi nit ki mën naa nekk ci place su liggéeykaay bu yemamaay waaye mu toog ca place ba di jël ay neexal di toog ca place ba di jël ay neexal wala yàlla nattu ko mu nekk ci ay béréb yoo xam ni bërëbu lijjanti la ñu koy fay di ko fay alal pour mu doxal liggéey bi ni nga xam ne noonu la waree waaye seytaane man ko bëgg alal man ko ba muy jël ay neexal daal di ñàkk ngorom ñàkk li nga xam ni moom mooy diine bokk alalu jullit ñi dafa am orma bu màgg fa yàlla subhanahu wa taala lislaam dafa xaraamal ñu jalgati ci alalu jullit bi moo tax yonent bi sallallahu alayhi ci xijjatul wadaar ba mu taxawee ci arafa ci weer bi nga xam ne weer bu xaraam bi la muy weeru tabaski weeru aj Abdullah ibn Abbas moom moo ñu koy nettali mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa xutba bis bu tabaski mu ne ee eh, nit ñi bis bi ñu nekk tey ban bis la mu ne ko bis bii de bisu tabaski la muy bis bu xaram bu ñu war mun mu ne ci ban réew ngeen nekk saaba ne doon ko nekk ci réew moo xam ne bu ñu war la mu ne ci ban weer ngeen nekk ñu ne ko weer boo xam ne weer bu ñu war maal la muy mu ne kon maa ngi leen di seen direct seen alal seen der dafa xaraam ci yéen comme ni nga xamee ni seen bis bii noonu la xaraamee comme ni nga xamee ni réew mi ngeen nekk noonu la xaraamee weer wi ngeen nekk tamit noonu la xaraamee yonent bi sallallahu alayhi ko ay yoon yoon yonent bi daal di sigg ci xool asamaan ne yow yàlla ndax jottali naa yow yàlla ndax jottali naa yow yàlla ndax yow yonent bi sallallahu alayhi Abdoulaye ibn Abbas radiyallahu anhu mu ne mu ne maa ngi ci yàlla mi nga xam ne sama bakkan mu ci loxoom mu ne loolu ndénkaane la boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi na ko xeet daal di ne ku ko dégg na ko jottali ku ko déggul hadis boobu Buxaari moo ko sol mbokk yi lekk lu xaraam lu garaaw fa yàlla subhaanahu wa taala dafay jur texee di yàlla ñu ci xam ngeen bépp suuf boo xam ni la ko reggal lu xaraam la yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na safara moo gën a yelloo ci àjjana moo tax mbokk yi ci saloog seen jamono danga daan gis mag mi day génn këram di xëy di wuti yi soxna si da daan gunge ba ci buntu kër ga mu ne ko mën nañoo xiif ci àdduna muñ ko mën nañoo muñ maru àdduna mën na ñoo muñ tamit ak rafle fii ci àdduna waaye mënu ñoo muñ mbugalum borom bi subhanahu wa taala kon looy indi ci kër gi na nekk loo xam ne lu leew ki dagan na ndax yonent bi salaa sallam nee bépp suuf woo xam ne la ko rekkal lu xaraam la safara ko gën a yelloo te ñun tamit ñu safar jigéen ñu baax ñi loolu lañ doon dégg seen i kër bokk yi bokk na ci danger yi nga xam ni moom mooy danger lekkul xaraam mooy yàlla subhaanahu wa taala du nungul jaam boobu di lekk lu jëf ju baax du mu jëf kon lekk lu day tee ñu nungul jaam bi farata bu mu jëf wala naafila waaw ah. bu saraxee tamit ci loo xam ne lu xaraam la kenn du ko nangul yonent bi sallallahu alayhi wa na laa tuqbalu salaatun bi gayri tahur wala sadaqatun min xulul salaa sallam nee na deesul nangu julli ci lu laab waaye sarax boo xam ni dafa jóge ci lu ñu sàcc wala loo xam ne lu xaraam daa deesu ko nangu xadis boobu muslim moo sol moo tax mbokk yi nit dina aj wala mu umra ci alal joo xam dafa xaraam mais kenn du ko nangul ajam kenn du ko nangul li nga xam mooy umra ni dina dem ba taxaw ca ne yàlla wuy si naa la yàlla ne ku la woo yow sa lekk dafa xaraam sa tool dafa xaraam sa naan dafa xaraam ku woo ba ngay dikk nan lañ lay wóyulee naka lañ lay nangulee li nga xam mooy sa nee na man jamaa maalan xaraman summa tasaddaqa bihi lam yakun lahu fiihi ajr wa kaana isruhu alayhi ci hadis boo xam ne Ibn Hibbaan moo ko solo ci saxiixam mu ne yenn koo xam ne dafay wut alal di dajale alal ju xaraam nee na ci compee saraxe tamit yàlla du ko nangul du ca am tiyaaba te du tee bakkaar ba da koy wax da koy wax aqulu ma tasmauna wa astaghfirullaha li wa lakum sa'irin fastaghfiruhu innahu huwa alhamdulillah wassalatu wassalaamu ala rasulihi mujtaba sayidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ibadallah إن من خطورة أكل الحرام أن الأكل من الحرام كبيرة ومنه ما لا يغفر فأكل المال الحرام بجميع أنواع كبيرة من الكبائر فليحذر العبد منها فعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والذنوب التي لا تغفر الغلول فمن غل شيئا أتى به يوم القيامة وأكل الربا فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط ثم قرأ alladina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladi yataxabatuhu sheytaanu min almas ñu ngi santaat yaatu jul ci yonent sallallahu alayhi wa sallam wax ni bokk na ci danger ak rawaar yi nga xam ne moo nekk ci lekk xaraam mooy dafa am ci yu xaraam yoo xam ne ku ko lekk deesu la jéggal xanaa nga tuub tuub bu set jëm xam ni alal ju xaraam moom yépp yépp nga boole lépp dugal ko ci bàkkaar yu mag yi muy lekk alal ju xaraam boole seen dafa tàbbi ci bàkkaar yu mag moo tax jaam bi da ko war a moytu ci Awfu doomu maa yàlla ko yàlla dolli dara mu ne yonent yàlla bi sallallahu maa ngi lay moytu ndikuloo bàkkaar yi nga xam ne des ko jëkkal bokk na ci mooy sàcc alalu askan bi sàcc alalu askan bi lu bokk nga sàcc ko sallallahu alayhi wa ne képp koo xam ne da ngaa sàcc dara ci alalu askan bi nee na yawmal qiyaam danañ di sëf ko indi nee na ak lekk riba mu interdit nee na képp koo xam da ngay lekk riba tamit yow man xiyam dañ ne la tekkil ni ku dof koo xam ni da ngay da ngay tëxañ ni koo xam ne jinne da laa jàpp soxlaa sax nee na lekkatu riba buy lekk yow man xiyam dafay mel ni ki kuy say koo xam ne jinne da koo dugg waaw mu jàng aaya bi ñi nga xam dañuy lekk riba yow man xiyam bu ñu dekki jóg taxaw ci kanam borom subhanahu wa taala loolu dañuy mel ni ki koo xam ne dañuy daanu ci ay jinne muy nekk suratu Baqara ci aaya xadis boobu Tabarani solo la ko Cheikh Albani wéram bokk na ci mbokk yi mooy kii lekk riba wala ki nga xam dafay lekk lu xaraam yàlla du nangu ñaanam ni mu dul nangu ay jaam yàlla noonu lay ay ñaan léeg-léeg nga dégg koo xam ne jàmm man li damay ñaan yàlla ba sonn mais ñaan gi du loolu nag dafa baax nit am taawu seetlu mu dugg ruq ak boppam. waxtaan ak boppam xool li muy lekk fan la ko jëlee ndax dagan na wala xaraam naan li sol ndax loxoom laalu ci alal yoo xam ni dafa ndax loolu lu am solo la ndax nit koo xam ne dafay lekk lu xaraam bu tàllalee yàlla loxo yàlla subhanahu wa taala du ko nangu bëri koo xam ne dina lekk lu bu ñaanee yàlla du gis dara yóbbeewu ko moom moo tëjal boppam bunti nangu ñaan te moom mooy lekk loo xam ne lu xaraam léeg gis ñoo xam ne tamit jàpp nañ lu daal da lekk nit ki mu lebal la nga daan bañ ko fay di ko dooloo bu mu bàyyi nag alal jooju nga yaakaar ne alal jooju wàcc na la mais yow man xeer ñu koy ki nga xam ne dafay lekk te fas yéenewul fay boobu sàcc la ndax ki muy lekk boobu xamut yaakaar ne day fay te fekk moom mu jàpp ne dama koy lekk mais du ma ko fay boobu sàcc la yow man xëy na da koy bokk na ci tamit même dëkk ci këru jàmbur nekk ab locataire nga yor weer weer mën ngaa fay nga laata bañ a fay bëgg mu génnee la dem dugg feneen mais loolu ëllëg yooyu yëpp da nga koy fay ay borom ndax alal jàmbur yooyu jar a ba xel la ah léeg-léeg nit ki tamit da nga gis koo xam ne day ñëw ci nit damaa bëgg a liggéey damaa bëgg nga dimbali mu jël ay jox ko wóolu ko pour bu liggéeyee jël bénéfice bi delloo li nga xam mooy capital bi mu seeyee alal jàmbur daal di daw. loolu bu ko def tamit man xal la yaati bi ma xal la yomal xiyaar képp koo xam ne sàcc nga tiraa nga nit ki dóor nga boo rëccee àdduna doo rëcc àllaaxira te bàmmee la nga lay xaar te bàmmee la xaar mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi ne yéen xam ne yàlla ku tey la du nangu dul tey yàlla li mu digal ah jullit ñi mooy li mu digal yonent yi daal di jàng yaa ayyuha rusul ay yéen yonent yi kulu lekk leen yu tey yi wa amalu saalihat te ngeen def lu yëw gis mu teg ci ni lekk leen yu tey yi nan la ci def lu baax kon gis nga bu fekkee da lekk lu bon di def lu baax lu baax loolu du la jël la jëriñ lekk lu tey jëf lu baax yàlla subhanahu yàlla ne inni bi ma taamaluuna alim wóor na ni man yàlla xam naa li ngeen di def man yàlla xam naa li ne di liggéey xam naa li di mu ngi nekk surat mooy noonu ci aaya ba yaa ayyuha allazina amanu lekk leen ci tey yi nga xam ne dañ leen koo wërsëgal kon am na yu tey ak yu teyut yàlla ne li ngeen di lekk nag yéen jullit yi mooy li ngeen xool yu tey ngeen koy lekk muy nekk suuratu baqara ci ay cent soixante-douze sallallahu alayhi wa sallam daal di nettali benn xam ni dafay bëri lu tukki nee na waa ji boo xoolee karaw yi dafa jaxasoo pëndee day tukki rek di jihaad day tukki rek ci yoonu yàlla waaye waa ji bu tàllalee loxo yàlla subhaanahu wa di ñaan yàlla day jël doon ñaan waaw yàlla da koy ne yow nu ma dee nangu la ñaan te ni sa lekk dafa xaraam sa naan dafa xaraam sa col dafa xaraam te yaa ngi dund ci lu xaraam fa annaa yustajaabu li daal gën a ni kooku ñu koy nangu la ak ñaan mbokk yi ba ci tegu mooy lekk lu xaraam day tax ñu ki ci yërmande yàlla wér na jóge ci yenn salaam ay xadis yu bëri yu wax loolu loo xam ne war naa tiital jaam bu ne war naa tiital jaam bu ne ba li ngay dugal sa biir wala li dugal sa biir njaboot mu nekk loo xam ne loolu leerul daal ndax kenn bëggul fanaan ëllëg kon nag boo mooy fii ci àdduna ngay lekk loo xam ne lu xaraam la di jël ci àll ba ci biti lu xaraam ñëw di ko jox sa njaboot ñu koy lekk te mu nekk loo xam ne lu xaraam te bokk na ci borom xam-xam ne gis nga di dundal sa njaboot lu xaraam day tax ay fitna bëri sa biir njaboot day tax say doom sax mën nañ ne lankal bañ laa topp bañ laa baaxee ni nga lankale yàlla subhaanahu wa taala ko topp yàlla fay la sa bon kama tuddil du daan ba yow say doom say doom lankal la bañ laa topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla rëbb na képp koo xam ne dafa soppi maanaam suuf mbokk yi ak moo bëri suuf ci ay nit yu am doole ñëw teg loxo ci suuf yi jàmbur te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadis ne képp koo xam ne da nga nangu suufu jàmbur yow man xiyaam danañ ko yenn danañ la ko yenn indi ko nu mu mën a toll suuf nu mu mën a toll ko nu mu mën a toll da nga ko yenn indi ko hadis boobu muslim moo ko solo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne la'ana Allahu saarix yal na yàlla rëbb sàcc mu ne yasriqul bayda fa tuqta'a yadu nee na ab sàcc sàcc ab nen ñu dagg loxo bi wa yasriqul habla fa tuqta'a yadu muy sàcc ab buum hmm, ñu dagg loxo ba yonent bi ne yal na ko yàlla rëbb moom mi nga xam ne moom mooy sàcc hadis boobu Buxaari ak Muslim solo na benn hadis boo xam ne Jaabir moo ko solo radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rëbb na kii lekk riba kii lekk intérêt te bokk yi riba ak moo bëri léegi suñu marché bi ak moo bëri ci dëkk bi am na ñoo xam jàpp nañ du riba ma toog sama place yor sama xaalis yor sama saabu xaalis laa koy tuddee nit ki ñëw ne damaa bëgg a liggéey ngeen ko ah cent mille laa lay jox mais boo may delloo dañ ci bi su fekkee jigéen ñi nekk xale ci bëgg a liggéey nga ñëw mu ne loo bëgg nga ne cinquante mille laa bëgg mu ne cinquante mille yi dañ ciy teg mille francs wala loo ci a teg ci cinquante mille loolu riba yonent bi nee noonu bépp bor boo xam ne intérêt da ci nekk loolu riba parce que bor du lu ñuy utee alal loolu lu jar a comprendre bor ci lislaam du lu ñuy utee alal la mais bor lu ngay dimbalee nit ki la ci jaamu borom bor pour loolu kon yéen sala seen ne yàlla rëbb na ci lekk riba ak nga xam mooy wakiil ba waaw kii dox pour affaire yi di ko lijjanti dox dossier yi ngi demee ko yàlla rëbb na ko waaw ak ki nga xam ne moo ko koy lekk ak ki moo koy bind ak ñaar ñi koy témoin yonent salaa sallam ñoom ñëpp ñoo yem ci li nga xam ne mooy rëbbum yàlla subhanahu wa taala xaalis moom ñu moo sol bokk yi bokk na ci ba tey mooy sàngara jaay sàngara yàlla rëbb na sàngara rëbb na ku koy naan rëbb na ki nga xam ne day liggéey fi ñuy ja fi ñuy servir ay sàngara di servir ki koy naan ak kañ koy nalal ak ki koy jaay ak ki koy jënd ki nga xam ne moo ko ak ci kaw lañ ko sëf ak kay lekk njëkk bi ñoom ñëpp yonent bi sallallahu ne yàlla rëbb na leen bu Ahmad moo ko koo xam ne sa loxo takk na ci loo xam ne lu xaraam la ah, loolu day waral li nga xam ci yërmande borom bi subhanahu wa taala nekk noonu dañ koy lekk lu xaraam dañ koy tëkkoo mbugalu borom bi subhanahu wa taala yenn salaasam wax na ñi nga xam ne dañuy xuus ci alal yàlla ci lu dul dëgg ñooñu safara ñeen na leen yowmal xiyaam xadis boobu Buxaari solo na ko sallallahu alayhi wa sallam nee na dafa ne yaa ko yow Kaab ñoo jël mu ne ko innahu laa yadxulul janna laxmun nabata min saxt annaar awlaa bihi mu ne ko yow Kaab wax yeneen bi mooy wax benn saaba mu Kaab ibnu Ujra mu ne ko yow Kaab ibnu Ujra maa ngi xamal ni te dugg àjjana suuf woo xam ne da ko reggal lu xaraam la nee na safara moo ko gën a yelloo wala yaa bi bokk na ci mooy lekk alal askan bi yëpp lu ñëpp bokk nga bokk na ci yeneen salaasal ne di koy borom safara wala yaa bi wala nang mi ci million ñu bokk daal yow nga daal ni ko nga lekk ko ñooñu ñëpp ëllëg yow man xëyam ñu nar daa ci kanam yàlla ëllëg yow man foo jëm mbokk yi te bokk na ci moom mooy euh, lekk lu xaraam day tax nit ki ëllëg yowmal xiyaam ñu saisir ko maanaam nit ki dafay leb kii du ko fay lekk alalu kii tirñaa kii sàcc kii yowmal xiyaam ñëw indi ay julli indi ay koor indi yu ay ak yu bëri ay sar yu bëri mais yooyu yëpp tuyaaba yooyu mu indi yëpp te mu yoral nit ay at tuyaaba yooyu lañ koy jël daal di koy séddale nit ñi si kem lim leen yoreel boo dee lim leen yore dafa des yuy jël seeni ñaawu jëf di ko sëf moom su ko defee jëlee ko yóbbu sabar wala yàlla billah euh, day tax alal ja muy fekki alal jooju ñàkk barke boo amoon alal joo xam du leew la nga jël alal joo xam ne ju xaraam la ñëw dugal ko ci mu rax ko da koy daal di yàq loolu mu mel ni ki soobu weex taal jar nga jël toqi dara sotti ko ci lu muy def du ko yàq da koy daal yàq kon gis nga lu bon bu fekkee lu baax mën na koo yàq mën na koo mëdd yàq yal na yàlla dafa taw fii dafa lañ ko doon mbooloo juris yal na yàlla xiir ci ñuy wut anam boo xam ne bu dagan la bu lew la yal na yàlla musal ci àq yal na yàlla musal ci àq rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama ربنا آتنا حسنة تقواها زكها خير زكاها أنت وليها مولاها نعم المولى ونعم

umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir senegaal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bi nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawe liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture am ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western Union dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam